أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب والصلاة والسلام على أشرف المرسلين sayidina wa nabiyina muhammadin alayhi salaatu wassalaam wa man tabiahum bi ihsaanin ilaa diin mbokki jullit yi mbokki àdduna bi mbokki internet yi vint 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa mu defal ñu jàmm defal leen ko bi jaay seydil wujud salawaatullahi wa salaamu di wax ne dellusiwaat nañu ak yéen nuñ ko baaxoo def ci seen tafsirul quran ngeen di ci ànd ak seen mbokk oustaz Basirou Thioune ci seen site internet gaal 24 ñu ñaan yàlla suñu borom mu nanguñu suñu koor te nangu leen seen koor waaye it di ko ñaan moom borom bi subhaanahu wa mu teggil ñu balaa bi nga xam ne nii moo wàcc ci Sénégal ci réew mi ci jamono ji ñu toll nii mu nekk natt boo xam ne jaaxal na àddina bi yépp natt boo xam ne jaaxal na boroom xam-xam yi jaaxal na boroom xam-xam yi français jaaxal boroom xam-xam yi diine yi lenn amul ci solution lu moy ñu dellu ci borom bi subhaanahu wa taala ñaan ko mu teggil ñu ko ñu toroxlu ci moom yàlla ñu ko teggil te it doomu aadama dafa war a gëm dogalu suñu boroom xam ne yàlla moom lu ko neex mu teg ko ci ay jaamam te kenn amul sañ-sañ kenn amul droit di ko kiritige ñépp dañu war a nangu na bokk ci ponk gëm yàlla al imaanu bil qadri gëm dogalu yàlla xayrihi wa sharrihi dogal bu neex danga koy gëm waaye dogal bu naqari it danga koy gëm xulwihi wa sharrihi waaye dogal bu yiw danga koy gëm waaye safaan ba it da nga koy gëm safaan ba sax ci zaahir lay nekk mais ci baatin moom yëpp yiw lay doon doomu aadama yi lépp lu leen borom bi teg rek lu gën ci ñoom la même feebar bi nga xam ne moom lañu suñu borom teg moo gën ci ndax yàlla du defal doomu aadama yi lu gën ci ñoom xanaa kay ñi koy ñaan rek mu may ñu xol buñ ko mën a dékkoo loolu rek mooy di am solo waaye bépp natt boo xam ne euh, suñu borom daf ko teg ci ay jaamam nattu booba moo gën ci ñam xëy na nag duñ ko mën a xam ndax ni mel mooy su fekkee ne tey danga yor xale mu feebar léegi nga yóbbu ko hôpital di ko faj buñ koy pikiir day jooy wala muy daw buñ koy jox sirop day bañ buñ koy jox ay comprimé day bañ mais fekk na loola moo gën ci moom ndax suñ ko fajul du wér naka noonu tam su fekkee ne xale dafa raam jëm ci loo xam ne lu koy lor la lu mel ni ki mu jëm ci ndox mu tàng wala mu jëm ci ñam mu tàng boo koy tere di ko aaye day jéem a bañ mais fekk na moom xamul ne la mu jëm noonu loram la waaye nag yow mii mi waajuram yaa xam ne li loram la nga di ko tere muy jooy léeg-léeg muy xëccu lu mel ni ki ay paaka ak yoo xam ne mën na ko lor nga di ko tere mu jooy fekk na loola nga tere ko ba mu métti ko ba tax muy jooy tere gi nga ko tere moo gën ci moom kon euh, doomu aadama yi lépp lu leen borom bi subhaanahu wa taala teg nañu xam ne loolaa gën ci ñoom suñ ko xamee ak suñ ko xamul yépp moo gën ci ñun li ñu koy ñaan rek mooy may ñu xol bu ñu ko mën a dékkoo bi jaay si dir bu jët aleyhi salaatu wasalaam mbokk yi su ko defee nag ñi sàmmanteeg suróot yi nga xam ne nii moom la waa kër docteur yi di wax lu mel ni ki ñuy fonk di setal suñuy loxo di raxasu bu baax waaye it masque yi ñu leen di takk euh, ndax lan sàmm suñu bopp aar suñu dund naka noonu tam alcosel yi nga xam ne ni ñu ngi koy laal ñuy raxasu ak saabu bu baax waaye it di laal produit yooyu nga xam ne dafay rey ay microbe ndax lan sabab lu pour suñu borom musal ñu dont nag yàlla mooy musal yàlla mooy aare mbokk yi mu mel ni dellu si waat nañ ak yéen ci seen tafsirul quraanul karim muy téere bi nga xam ne moo gën a màgg ci mboolem téere yi muy téere bi nga xam ne moo gën ci mboolem téere yi nga xam ne nii wàcc nañ jóge ci asamaan ñëw ci kaw suuf waaye it téere boo xam ne yàlla nga ko wàcc ci xeet bi nga xam ne nii moo gën ci xeet yi te muy xeetu sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam nga xam ne moom la yàlla waxoon ne ko kuntum xayra ummatin uxrijat li naasi yéen yéen ay xeet bi nga xam ne nii euh, ñoom laa tànn ci mbooleem xeet yëpp muy xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon nag yéen ñi nga xam ne yéen gën ci xeet yi maa ngi leen di te na digal ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna 'anil munkar fexe leen ba di digle lu baax waaye it di tere lu bon kon su fekkee ne digleetuñ lu bon digleetuñ lu baax tereetuñ lu bon kon duñ ca gën kon foog boroom xam-xam yi di wax ak jaami yàlla yi waaye it foog boroom xam-xam yi di wax ak nit ñi di leen conscientiser nga xam ne dañuy leen di delloowaat ci seen borom di wàccewaat seen xel ba ñu mën a dellu ci santaane borom bi subhaanahu wa taala dellu ci alquran dellu ci sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu moo tax ñi firi alquran wala ñi koy jéem a tarjama sax la ñuy wax ndax firi mooy ñi nga xam ne ni ñoo ko def nii def ko ay sharha ñoo ñoo firi alquran mais ñun dañ koy sottandiku sottandiku mooy tarjama mooy interpréter jëlee ko ci langue yaaram indi ko ci langue bi nga xam ne nii ñun moom la ñu dégg ñi jëlee ko ci langue yaarab muy arab indi ko ci wolof ñu yóbbu ko ci soninke ñu yóbbu ko ci bambara ñu yóbbu ko ci français ñu yóbbu ko ci anglais ak yeneen nag yeneen ni làng kon loolu du firi alxuraan lu traduire la ñun ni ñu traduire ci olof tafsir nag ñi nga xam ne ni ñoo tas yi am na ay kutubu tafasir yu baree bari ñu seen niveau moo yegg ca foofu waaye ñun moom daanaka liñ ca xam bëriwut moo tax jarul euh, jarul jarul garaamu bu sax ndeysaan jarul sax kaalawu ndeysaan ndax yow da ñëw fekk ngay jaar ci lam bindoon mbokk yi ñu ngi wàcce woon ci suñ bind bi wàcce bu yeesu ci fi borom bi di waxee ne wa aqimu salaata wa ato zakat taxawal leen julli juróom waaye dee leen joxe asaka am na lu ma jotoon a wax ci taxawal leen julli juróom mooy mukkalaf daal bu jógee ba war a julli war na am fulla ak fayda war na am respect ci lim jëm muy julli waaye it nit bu demee ba mu kalaf suñu borom sant ko lu julli nga xam ne mooy ponk bi gën a màgg ci mbooleem ponk lislaam yi ginnaaw boo seedee ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah jaamu yàlla googa soo jógee ba wàccaa jëm war ngaa xam nuñ koy doxale waaw mais nag yàlla nañu yàlla yërëm loolu rek la mooy mat a ñaan ndax lan doomu aadama yi seen mbiri àdduna lépp danañ ko lijjanti ba xam ko pour xam nga ba mooy seen mbirum jaamu yàlla seen mbiru àdduna yëpp danañ ko sonnee seen mbiru àdduna yëpp danañ ko lijjanti waaye bu ñu demee ba ci julli bu ñu demee ba ci yeneen ibaadaat yi dara lañ ci xamul majorité bi yëpp xamuñ na ñuy jullee te nag mukallaf mu nekk ginnaaw boo xamee ne am nga 18 ans war ngaa fexe ba xam nan lay def ba am julli gu baax ndax magum jëmm jog dem ci toilette ba tuur ndox ñëw jàpp julli ba noppi sa julli gi baaxut perte la maanaam nga xam ne da ngaa entraînement rek ay mouvement rek dem sa yoon musiba la ni nga war a def mooy dem ci ustaas yi nga xam ne ñoom dañuy jàngale gratuitement fayeekuñ kenn laajuñ kenn question boo leen posé ñu tontu la te du ñu ci dara nga laajte man ndox ma mën a jàpp man ndox moo mën a dem toilette man ndox ma mën a sangu ndax du n'importe quel ndox rek nga mën a jàppee wala nga fóotee ko yére bu am sobe wala sax nga raxas ci yére bu am sobe lu mel noonu déedéet ndox mi ngay jàppee walla nga man caa sangu sangu set muy sangu farata walla nga man caa fóot yére bu am sobe ndox mu mu day ndox ndox mu laab taman a laabal man ndox mooy ndox mu laab taman a laabal mooy ndox moo xam ne benn ci melokaani ñett soppeekuwul na mu mel soppeekuwul la muy xeñ soppeekuwul la muy saf soppeekuwul ci loo xam ne dafay teqale kook moom mais bu dee loo xam ne dafa ànd ak ndox mi tout le temps kooku dañ la koy jéggal ndax addaroraat tubbihul maxsooraat lu mel ni kii ndox moo xam ne bari ko bi nga ko def bari na yàgg na fa mu xaw a sensé couleur kooku dañ la koy jéggal ndax daroor ya la lu mel ni kii eau de javel bi nga xam ne moo ñuy saf yenn saa yi ci euh, robine bi mënoo koo moytandiku kooku dañ la koy jéggal mais eau de javel boo xam ne ñu teg ndox nag ñu sotti ko ci kooku moom boo ko amee ndox moomu mënul jàpp mënul sangu set mënul raxas sobe yooyu bàyyi ko xel fi ngay jullee mooy sajaade bi ngay jullee nga fexe mu nekk sajaade boo xam ne bu laab la au lieu nga bàyyi sajaade bi xale yi di ci dox ak seen dàll yi teg ko ci saal bi ñëpp di ci jaar ak seeni dàll ñëpp di ci jaar ak seeni euh, carax soo jógee bëgg caa julli da nga julli ba noppi mouvement rek nga def entraînement kese yàlla nañu ci yàlla jéggal waaye it bu fekkee ne yaa nga dem bay jàpp nag nga fexe ba xam farata jàpp xam nga farata jàpp juróom la képp yomb te bari na ñoo xam ne ni tey boo leen ko laajoon duñ ko xam léegi waa déglu ma ma waxal la farata njàpp juróom-ñaar nga xool nga xalaat yow ci sa xel ba xam ndax xam nga farata njàppam déet kenn ku nekk nag soo ko soo dégloo di xam ndax xam nga wala xamu la ndax farata njàpp set la juróom-ñaar loo xam ne boo compté sa fukki baaraam yii du mat te dangay gis mag mu bijaaw wala nit koo xam ne jigéen la dem na ba am njaboot ba bàyyi njurum doom ba ami goro soo ko laajee farata njàpp du ko xam macha allah walla sax du xam nu ñuy sangoo set te sëy na ba am ngeen baal ñu ba am ay 60 ay 50 ans dem ba borom këram génn àdduna mu war a teñ ji ñu koy jàngal nu ñuy sangoo set allahu akbar li ñuy wax nag waxantu wuñ ko de ndax ustaas lañ te yàgg nañ ci maydaan bi te yàgg nañ ñuy posé question yu mel noonu ku la mat yaay da la koy posé nan la ñuy sangoo wala sama sangu bi def naa ci nii laa ko doxalee est-ce que noonu la nga ne ko non ah yaay booy nii la ñuy doxalee loolu moom arrivé nañu lu bëree baree baree baree baree bëri waaw wala sax jigéen nga laaj ko nu ñuy sangoo farata wala sangu set mu expliquer la ba mu jeex ba mu jeex nga ne ko ku la ko waxal mu ne la sama yaay mu ne sama yaay moom ma ko jàngalee nii te moom li mu wax du noonu waaw farata jàpp juróom-ñaar yéene sëlmu masaa bopp ale bi ragg sa loxo ragg sa tànk ak bomb ak toftale mooy boo commencé njàppali ci commencement ba fin doo arrêté set yooyu kepp la ndax mën nga ko te yooyu noonu boo ci bàyyee benn boo ci bàyyee benn njàppali baaxul bu njàppali baaxul boo jullee julli gi baaxul da nga entraînement lu doy waar la jar naa xam wala rek moo tax wa aqimu salaat wa atu zakat waaye it nee na dee leen joxe julli dee leen joxe asaka hey jaamu yàlla yi nañu bàyyi xel suñu borom mi nga xam ne moo ñu jox wërsëg xam nga du du du wut ne ku liggéey am du wut ne ku am xam-xam am du wut ne ku am ay diplôme am du wut ne ku tukki am yàlla jagleel wërsëg ku ko neex suñ borom jagleel la wërsëg jox la alal ba noppi ne maa faratal ci yow nga génne asaka pourtant ñi ngi koy jox ñoo ko moom waaye yow moomuloo ko la leen di jox man maa la ko sant waaye it gënoo leen bi nga koy am gënoo leen di say ndey de ci sama mbaax la du seen yaafus moo tax ñu ñàkk du seen ñàkk xam-xam moo tax ñu ñàkk du néew pexe moo tax ñu ñàkk waaye nag yàlla moo ne man may wërsëg may wërsëgal ku ma neex ci samay jaam mu nga mu neex nga neex ko mu tànn la jox la wërsëg woowa tee nga cee delloo borom bi njukkal bul sabote kenn bul xeeb kenn bul ñàkkee kes kenn waa atu joxe la azaka yàlla mu ne yéen bënnoo israila lii de laa siñaxante woon ak yow accord yii laa siñaxante woon ak yenn cest à seeni maam ñu d'accord ñu signé waaye nag zumma tawalaytum gannaaw ga ngeen jox gannaaw lépp loolu nag dafay dellu ci cépp koo xam ne dangaa faslante nit benn accord ak bu mu mën a dox na nga fexe respecté li nga wax ak moom ak lu métti métti par exemple léeg-léeg nit soxla liggéey ci benn place euh, dem ñu jox ko règlement intérieur yi mu liir yépp gis ko mu métti lool mu ne garaawut bàyyil ma accepté ndax lan euh, <laughs> semence bi métti na mu jël ko dem ba ci biir gis ne affaire bi métti na mu commencé di indi ay tapale déedéet assumer sa responsabilité yaa ko si ñëwoon lépp loo si ñëwante ak nit moo xam location la moo xam liggéey la entreprise la lu mën a doon moo xam ab sëy buñ takk la yaa yaa accepté woon ne ko ndaw si dina ak d'accord naa pour nekk yow ci nii ak nii ndaw si yaa d'accordoon ak jëkkër ji ne ko d'accord naa ak yow nii ak nii ba tax ñu fas sëy bi assumer yaa dem ca place ba déposer say say say dossier da ngaa bëgg liggéey ñu jël la sa liggéey ñu jël la ca liggéey ba ne la ah nii lañ ko bëggee ak nii ak nii nga dem ba ci biir nga naan ah man nag vraiment moom gis naa ne conditions yi dafa métti mais pourtant yaa ko jëloon moo tax balaa ngay dugg ci mbir da nga ko da ko war a xalaat dégg nga ilaa xalilun lu ma ñu néew minkum ci yéen wa moo mu'ridun ngeen du mooyu ko ay benn benn rek ku mel ne Abdullah ibn Salam ak ñu mel ni ñoom ñoom ñoo assumer seen responsabilité gëm ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam te ñoom ñoo ñëpp ñoom yahud yi mooy juif yi dañ waxoon ne bu sayyidna Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñëwee da ngeen ko gëm ñu ëlbatiku weddi bañ na duñu gëm mbokk yi wa iz axadnaa misaaqakum laa tasfikuuna dimaakum mu ne ba tey itam da ngeen bàyyi xel am na beneen accord boo xam ne si ñëwante woon naa ko ak yéen mooy bu leen tuur deret mooy bul jël paaka di ko jëm sa moroomum nit bul jël jaasi di ko caw nit waaye it bul jël fetal di ko jëmale ci doomu aadama waxoon naa leen ne bu leen fàttante ci seen biir bu leen rayante loolu nag dinañ ci ñëw nu gën a yaatu incha allah